bismillahirrahmanirrahim waaw kaamin bi euh, li ma ci njëkk a xalaat mooy que ne dama gis ne lu baax la parce que loo xam ne suñuy kilifa ñoo ko doon def seeni doom topp ci di ko def ëllëg ñun ñu war ko defal suñuy kilifa loolu laa jàpp ne lu baax la et puis vu que ne retrouvaille la boo xamante ne képp ku dëkk Colobane rek di ci gis sa bopp quoi. bés bi am na solo ndax kan moo tax ñuy wàcce ay kaamil suñuy waajur jigéen mag ndaw sunu wayi dawlu yëpp yi dëkk Colobane amul xejj ak seen ndax booy nekk ak nit ba nekkatoo ak moom mbaa nga di ko fàttaliku ci fàttaliku yu rafet Colobane ñëpp benn lañu amul xejj amul seen amul kii dëkk Saakura amul kii dëkk Baylaay amul kii dëkk Parcamazu ñun ñëpp Colobane la rek ñu bokk suñu Colobane. di kontaan ci mbir mi yàgg nañ ko def mu am njariñ nag. ndax suñu maam yeeg ñu bàyyi fi lañ fi la ñu dëkkoon génn àdduna man suma suma doom benn ko ñu wax may sëndooy ci yoon football Colobane ci la bokk génn àdduna ak ñoom Pam Mali xale yëpp boo boole yëpp ñëpp ñaanal ñëpp yàlla yërëm leen ci barke Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. moom moom dëgg yàlla macha allah dañ koy rafetlu parce que ñun dañoo juddu fekk ko fi waa ñuy wàcce suñuy maam kaamil suñuy nijaay waa suñuy yaay ñëpp daal. ñun tam ñu rafetlu ko tamit di ñaan jigéenu Colobane ñu gën a jóg taxaw ci gën cee faru ba ñu nit bis bu yàgg defee tam ñu dëddu àdduna suñuy sët mën ñu ko di defar. initiative bu rëy la initiative bu baax la maa ngi si euh, saluer de passage euh, Abdourahmane Samb bi nga xamante ne bi nekkul initiateur bi mais moom moo moom moo ko biste mu gën a toll fii. waaw ndaxte mu ngi ko léegi mu ngi ko jëlee si mag ñi nga xam te ne benn kër lañ ko daan def mais dem ba yaatal ko def ko kolobaan yëpp ñooñu la ñuy fàttali tey di leen ñaanal. loolu defe naa ñoo ngi ci sixième à septième édition parce que biñ koy doog door dañ ko defoon pour mag ñi génération yi nga xam ne ñoo teew borom kër yi nga xam ne tey jii nii ñoo ñu permettre ñu dëkk fii ci kolobaan te amuñu ko la location fayuñu location une ci de barke ñoom donc ñu ne dañ leen di jagleel benn fan ci biir at bi ñaanal leen ci ñaanal ci way dawlu yëpp. suñu waajur yi fi jóge dañuy soxla ñaan ak ku mu doon parce que nous aussi ay Julit. lañu té julit bu ko dañ ko war ko fàttaliku di ko ñaanal donc journée bi dafa am importance parce que ça permet ñi nga xamantene ne daaw ñu ko seen. Euh, seen défunt yi donc ñu fàttaliku leen di leen ñaanal daf ciy am solo. wàcce kaamir bi sant yàlla la ndax ñun dañoo juddu fekk mag ñi daan ko def. ñu naan yàlla nañu dund ba lii mujj suñuy loxo mag ñi nag biñ ko daan def ku mel ni ndam si yàlla suñu papa Medoune Gueye ak suñu baay alaaji njagandooy ñoom ñoo ko daan def biñ koy def nag ñu ko daan defee ci kër mu yaatu woon lool ñu daan ko def yendu. waxtaan fàttaliku mag ñi ñaanal mag ñi wàcc ay kaamel def ay berneel pour berneel yooyu ku ci lekk rek ñaanal way daw lii wa ilayhi